maa lay bëgg. maa ngi lay fay maam Bamba. borom eh, waa gis nga loolu de la yàlla dogal moom. ndaama yëgul njool la wax de. waaw loolu am na moom ndaama moom yëgul njool dégg nga ko sax. waaw <laughs> eh, oui. fan jëm ne. waaw fii ñu ngi jëm ni rek suma benn kër grand bu baax kër Ousseynou Diouf domaine. Ousseynou Diouf mu nekk suma benn grand suma mag bu baax boo xam te ni day jàpp ci xam làmb ji ci carrière Mourante sax laa. comme li duub ci nag yëpp xajul ci cin li. dañuy dem ci ñeen rek après beneen yoon incha allah ñu teel koo waajal ñu mën a ñëwaat demaat ci ñoom te ñaan tamit sunu borom lafal ñu cat quoi. mbër si fan fii carrière la parce que te am na ci xama politiciens yoo xamante ni sax wala bonne volonté yoo xamante ni sax combat ba combat lan lay jàppale mais kii moom bokkul ci loolu wax dëgg yàlla suma nit la même budul dul làmb sax daf may jàppale. waaw moo tax tey ma ñëw seet si ko. waaw d'accord amul problème. bisimilah. seeti suma grand suma xarit suma mag muy Ousseynou Diouf xam nekk suma grand bu baax wax dëgg yàlla xam bam ma dalee teg loxo yàgg na te yàlla dogal na yamalewu ko ci làmb ci làmb rek du suma amee combat rek la may jàppale noonu non Ousseynou lépp lu ma nekk suba ba ngoon mu ngi ci. fii sama kër la amoo sens interdit heure bu ma neex laa fiy dugg te loolu lépp ak oyofam moom moo ko waral te kilifa la par Serigne Touba looloo tax ma ñëw ànd ak yéen ñëw seet si leen seet si ko tey. waaw Modou Anta suma rakk la suma xarit la champion la xam nga ñun moom ñun en tant que doomu Thiès képp kuy doomu Thiès ba nga xam ne yaa ngi góorgóorlu ci doon ba nekk yàlla def nga am ci jom am ci fulla am ci fayda dañuy sawar ngir jàppale la ñu gis nag li muy def nag gëm na ko da koo gëm d'abord gëm ne dina ci fii ay Balla ay ak ay Modou Lo ak ay Yékini ak Bombardier yegg dina ci yegg ah ñu sawar itam jàppale ko ndax am na jom fonk na ay wéjuram ah fonk na ay kilifa diinam fonk na waa Thiès fonk na Medina Fall gom bokk waaw li ma gën a motiver mooy yaram Modou Anta dafa yaru xale bu yaru la non seulement yaru na mais itam am na gëm-gëm maanaam carrière professionnelle bi muy def nii combat bi muy def nii euh, lutte bi muy def nii dafa ko dafa ko ay caaxaan doo ko def fulla ak fayda boo gisee bu boolee nag euh, am yar boole fulla ak fayda ci la muy def kooku day neex a jàppale. maa ngi xool rek ci combat am contre Yékini Junior boobu maa ngi ci stade bi waaw te incha allahu rabi bii di ñëw itam tamit noonu waa maa la ko wax. loo ci jàpp doyut ndax doomu mbër mi la jël. moom xam na man xam na du ci ay dem ay stade ak yooyu am lu bari lu nekk ci ginnaaw moom xam na man xam na ah ñun itam ci wàll wu ñu nekk ñuy ñaan yàlla bis bu ñu ko yàlla gën a loo ci ndombal tànk ak ci doole vraiment ñu jël ko delloowaat ko askan wi waat ko ci askan wi delloo ko ci ñu mel ni ñii ndax ñii suñu fierté lañ te bu ñu sañoon comme ni ma la ko waxee fii ñu dégg yeneen mbër yëpp ñu dégg leen te incha allahu rabi bàyyiwuñu loolu ñoo ngi ci pour jàppal leen bu baax a baax a baax jërëjëf. léegi dañuy dem jaxaaw rek seeti fans yi xam nga parce que am na ci fans yoo xam ne mënuñu leen a ñàkk bañ a seeti quoi parce que ñooñu tamit xam nga wàllu mobilisation beeg xam nga Thiès dañoo war a am benn xar kanam bu nu wone waat parce que xam nga gis nañ ci làmb ji deux ans am na lu nuy xaar te am na fu ñu teg suñu bët xam nga li kon nag day jot ñu ñu sol suñu daal dugg ci nit ñi waxtaan ak ñoom xam ñu ñëw waaw teg ci loxo rek ñu indil waale. jaxaaw la. jaxaw gis nga boo ma tooñee nag fee laa lay dugal. non bu ma dugal fee baa nga ne. fii laay woo léegi ñu def ci yow. ñoom suma grand bu baax. waaw moom moom suma grand la xam nga ku nangoo sonn ci man la moom ay daam seen lépp lu ma nekk dañ ciy nekk barke Serigne Sall parce que man nit laa koo xam te ni du ma gërëm ku ma defalul dara ndax am naa fulla ci suma bopp mais kii moom suma mag la barke yàlla maa lay siyaare nañ leen bu baax a baax yow sunu fan sa nga dana yàgg dañoo toog di la macha allah ngay def lu neex ñu ngi lay bëgg a la Thiès tey loo mën a wax ci mu daan waaw moom jëmm ji li ma mën a wax ci moom dafa bëri tey dafa am fu mu jóge am fu leen indi euh, bërëb bi mu leen indi nag dafa sacré ci moom dafa nekk suma rak euh, nekk fierté Thiès waaw loolu kenn werante wu ko waaye moom boo ñëwee ci domaine bi mu ne mooy Thiès waaw keneen ku ñëw da ngay topp ci ginnaam loolu la yàlla dogal ku ñëw fekk mbay Dozé ci fiefam mu toog yow da ngay xaar ba ma pare nga ñëw waaye kii ko fekk muy léewtoo da ngay xaar ba mu daan ba ñibbi nga doog a ñëw loolu la yàlla dogal. noonu la demee euh, fi may waxee àdduna yëpp may gis moom dafa nekk jëmm ju fonk fi mu dëkk muy na faar gi mu nekk fonk Thiès gi mu dëkk gis nga moo doon bu ne bëreet ñett waa Thiès bu ñu fàq wa mënuñoo xaj stade maa la ñamal lii loolu yaram moo ko may. ak mbaaxam ak respecté doomu aadama ñun duñ ne yàllaa ngi nii te gisuñu ko mais lu ne fànn kenn du ko jeex waa jaa ngi nii euh, ñu bokk nag di liggéey ci ki nga xam ni muy président Habib Niang moom euh, mayor communication moom leer na lool ci moom waaye jëmm ji ba mu ne président Habib Niang yewa ba léegi nii dañul mooy li ma ko wax nag Modou Anta jigéediwu la benn yoon waaye Mbaye Dozé jigéediwu la kon loolu la yàlla dogal. dafa fekk nag fan yi damay waaj ay. <laughs> non non non grand grand. ah mu sedd. ah xam nga. <laughs> nuyu ñëpp di rafetlu seen waay fii eh, di leen wax ni ñëw ngeen fi ngeen war a ñëwee eh, ñun c'est le mouvement en action. waaw kooku dama si sawar bu baax ñaari champion waaw ñaari champion Thiès champion ak champion ñooy ànd montre yu baax yi ñooy ànd ñaari champion yooyu ñoo am Thiès moo tax ñu mën a ànd. bu bu bu moom moom moom moo tax ñun professeurs yi ñu ñeme politique moom moo tax Modou Anta le président Habib Niang moo tax Modou Anta yàgg na fi yàgg na nekk champion mais est-ce que mus ngeen ko gis mu affiché wu devant un politicien. waaw dama jóge léegi dem représenté ko moom président kër euh, kër ñoom monde waaw mi nga xam ne waaw sœur moo décédé mais daf ma wax léegi benn wax mu ne ma président Habib Niang li mu li mu réussir def mooy dajale ëttu làmb yëpp Thiès. dajale leen léegi ñëpp ay doomu nday lañ ñëpp loolu rek dafa rëy donc ku xam adversité bi nekk si sport moom mu indi fair play dugal ko si làmb léegi cees mun nañu bëre ba pare longo ànd dem ñibbi donc ñu xam ne tout dans le cadre du sport donc c'est le président Habib Niang moo réussir ce pari et suñu champion bi kii këram la parce que c'est c'est le mouvement des champions dafa ñëw këram et yàlla na ay ndam yi yi ndam topp si ñi ko topp yëpp. xam leen ni benn champion moo fi am muy champion et ñun dinañ ànd ak moom. dafa neexul ba neexul mais ñun Thiès mu ànd te xam nga léeg-léeg dañuy wane ni télé mu naan Thiès maa fi ne te waa Thiès ko yaa ne. yow la yow la moo wóor. mais Modou Anta ñoo man ko jox ko loxo. ne moom la. fii dijj dëgër ko gën moo fi ne. non moo fi ne. ki muy bëree keroog yaakaar naa ne biñ koy woo en muy jongante lu raar suñu président Habib Niang décroché li nga xam ni mooy waa TFM décroché Lamine Samba ñu ñëw ba ko ñu Moodu Anta buntu këram. gaa yi ñëw taxaw ñuy waxtaan pare guñu pare guñu adversaire bi woote papaam la ñu woo jotuñu ko ñu teg ci même pas trois jours am na problème de. non eh am na. am na problème de jën kay. nag sama xarit la wax dëgg yàlla. waaw non papaam moom sama xarit la ma koy nuy de passage. jën kay rek sama xarit la ma koy nuyu de passage yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko fan wu gudd bañ yegg ca loolu mais am na problème bàyyi woon na ay dama génne woon ay reetaan mais jën kay am nga problème waaye yéen it kenn du yéen. Equivox euh, kenn du yéen yàlla na gën a saawan baawan waaw ndax ni ngeen koy defee nii noonu rek la. topp leen gars yi bu leen may dara na ngeen mel ni Kimpembe xam ngeen joueur euh, Paris Saint-Germain boobu défenseur bi ku nekk am nga sa Kimpembe yéen nekk leen Kimpembe ñëpp waaw bu leen bàyyi kenn. non non fii leen fii leen jëm nii rek côté résidence la Dior nii rek. Momar Balan fay seeti. Karim du yomb. Ah? Thiès moo topp suma ginnaaw. Thiès Thiès Thiès. Ndakaaru topp waaw waaw non du Ndakaaru de Medina nga wax. Ndakaaru non quartier ndax. sérieux. <laughs> ko neex wëndeeloon na waaw fii mm, grand standing la. fii mooy grand standing waaw ma seeti suma grand bu baax suma mag. ñu koy wax Mamar Ba. mu nekk nit ku yàlla baaxal la. dem xool Mamar Ba. ëpp la jéeri borom nag ak meew la wala. waaw waaw waaw tey moom moo xam suma kër laa ñëw quoi. wax dëgg kii mooy Mamar Ba. waaw père Mamar Ba mu nekk suma nit ku baax. koo xam den xaarim yàlla rek a tax may wax. barke Serigne Saliou jëmm ju baax a ngi nii jëmm ju yéeme jëmm joo xamante ni bu mu doon amoon ñaar ñu mel ne moom noo kon romb na fii. waaw lii sax dama koo bert def ko ko ndax moom li muy def yàlla rek a tax mu di ko def di biñ yàlla boolee ba léegi barke Serigne Saliou Mbacke may jàppale guddi di ma jàppale bëccëg. waaw Modou mën naa ni sunu sunu jarbaat la sunu rakk la suñu xarit la surtout ñun ñi nekk sama waa kër yëpp vraiment. peut espace yi boo tax ñoom ñu taxaw si biti di xaar mais ñoom ñëpp ay fansam lañu moo du nag sama déggante ak moom yàgg na lu ñu jëkk boole bu ñu xamante di woon sax làmb mais affaire diine la woon donc ñu am événement ñu boole ma ak moom xale la boo xam ni donc nitu diine la benn ñaar mu am fulla am fayda respecté la muy def ba pare nag respecté boppam xam boppam ma soo dégg sii si ñu ni moodu def na fi lii wala xuloo na fi wala wax na fi lii mbër nag moom fu bu bu bu bu duggee si géew foog mu am nu mu mel mais ñiy gis Modou si si si si si géew bi buñ ko xamoon dans la vie privée du si gi xool nit. Modou moom <laughs> Modou mooy ñun ñun ñooy moom lépp lu mu xewlee moom moom ku ñu fa gis moom di ñu gis moom ñun ñëpp. man ak sama sama gaay yi ñoom ñu ngi si biti noonu gis ngeen leen ak sama waa kër sama njaboot sama soxna ñu ñëpp moom la ñuy supporté donc amuñu ñun lu dul su dëkk bi te moom amuñu lu dul du aussi donc lépp lu mu dugg dañ ciy dem ba jeex mën moo du mun na daan ku ne moo du kuy mbër buy dem la <laughs> kii étape la rek kanam la jëm. incha allah. fii fii mooy fan waaw xam nga fii moom mooy li ma la waxoon kër grand bi këru làmb la. fii amateur yi yëpp ñoom sport rek la ñuy dund. waa kii nag moom mooy CNG lamb ji <laughs> mooy CNG. CNG maa ngi ziar yàlla na yàlla na ko ziar alhamdulilah. ñu ngi sant Cheikh Ibrahima Niass bu baax alhamdulilah. naka Thiès. waaw Thiès ça ñu ngi ne ñu ngi sant yàlla bu baax macha allah. sa waay loo waaw Modou champion la macha allah borom baax la xaritu grand bi la wóole la bi la. ku am couleur diggam ak grand bi yàgg na parce que moo xamee yàlla grand bi moo tax quoi grand bi moom ma ko présenté mais vraiment ci ay relation yu naaj la ñu am boobu léegi quoi waaw jén xam nañ ko parce que doomu Boy Kayré la xam nañ ko mën nañ la wax kii ka njëkk a daan premier combat am Ibulaay bu Faas la bëreel Ibulaay moo ko daan xam nga ko xam naa jén bu baax waaw man yàgg naa ci làmb c'est pas pour rien ñoom ñu may tooñee CNG quoi non non non non non Modou borom fit la mbër doo ko tënk ci li mu mën da nga koy bàyyi ci li mu mën mu dem ci li mu mën mais di nga ko ñaax mais li ñu koy ñaaxee nag duñ ko wax ci télé